pil yéene kay bi waa dig di division investigation criminelle teg nañu loxo ñaari garde pénitentiaire kenn ki Idrissa Sow la tudd dip inspecteur de l' administration pénitentiaire mooy directeur des affaires juridiques de la planification des statistiques de l' administration pénitentiaire ki ci des Issa Ndione la tudd dip asident waa dig ñoo leen jàpp démb ci seen enquête ba tey jii ci lañ leen war a defere ca parquet ba ak tuumay violation secret professionnel a xajamal kaarange réew mi ba ñu l' observateur nee nañu bi ñoom ñaar partagé nañu documents yi ci seen whatsapp kan lañu ko yónnee ak lu tax ñu yónnee ko yéenekaay bi nañu loolee lépp ca kanamu gis ba ca lay leer libération xëyee moom it xibaar bi ci xëtu njëkk ba bind ne dig teg na loxo ñaari agent yuy liggéey ci administration pénitentiaire bi leetar bi directeur administration pénitentiaire colonel Abdoulaye Diagne bindoon ministre de la justice doon ko ca yeggee état de santé bu Ousmane te lettre ba mujj ci mbedd démb juge CEDEAO yi daje nañu démb doon càmbar kalaame gi fi avocat yi Ousmane yi ba ci avocat yi Ousmane Sonko ci nekk ci ñoom say kàddu surna journal L'Info xëy nañu ko ndil ci xëtamu njëkk ba teg ci bindit ne état bu Sénégal jël na coup démb Walf Quotidien nañu avocat yi défendre état bu Sénégal dañoo mel ne bëgguñu yëf yi jeex moo tax ñu bëgg ko yàggal di taaweeka lawlawal agence judiciaire de l'état bi yéenekaay bi nee nañu wax na démb ci audience ba ne ñoom pare wuñu ngir plaider dossier bi dans le fond lum ci man di am journal Tribune mi ngi ñuy fàttali ci xëtamu njëkk ne délibéré bi 17 ne woon nañu delloowaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi élection présidentielle yi 2024 yi journal point actu mi ngi ciy waxtaan ak Mamadou Diop Decroix njiital AGPADS nee na kii wutu Macky Sall ci bopp réewum Sénégal dafa war doon ab président de la République buy dellu si confiance ci askan wi sagara ngi xeeñ ci njàng meek njàngale mi Sud Quotidien moo ñu ko wax ba di ñu xamal ne syndicat yi jàngalekat yi di CUSEMS ak SAEMS ñoo woote journée école ci talaatay tey ji ministère éducation nationale ne du ndax syndicaliste yi bëgg a sooxeel njàng mi tey ci ji li ñu wax teguñu ko fenn te bu ñu ko defee luñ ci nañu ko gar vox populi nañu yomb ne SAEMS ki SEMS contre ministère éducation nationale guerre totale ndax ñaari wàll yi ku ci nekk ci ñoom yaa nga màtt fa nga màtt ngank mu dëgër ne doo bàyyi li fekk daggul ñu bàyyi njàng mu digg dóomu mi di enseignement moyen secondaire te wax ci enseignement supérieur bi ak anki mi xëy di ñu xamal ne yi yëkkati nañu seen kàddu di sàkku ñu ubbi université yi ñu tëj tijji waat leen l'observateur keroog ba